ak Ibou Diouf la ñu dem fale ca Mali foofu nag parti politique yeeg association yi ñu ngi sàkku ci euh, cour suprême mu euh, ajandi euh, lii di décret bi ñu jëloon fukki fan ci weeru avril te di di gàllankoor seen i doxalin foofu ci réew waaw ci fàttali rek ni nga ko waxee léegi fukki fan ci weeru avril bi ñu génn rek kilifa yi nekk foofu ci bopp réewu Mali dañu dogal rek jëloon dogal dakkal bépp activité organisation yi nga xamante ne ñoo doon yëngu ci wàllu politique ci ñu ci bëri féete woon ci wàllu kuje gi. loolu nag euh, jamono ji yóbbu nañ euh, boobule euh, décret ca cour suprême ngir sàkku ñu neenal ko ne rek loolu bokk na ci li nga xamante ne jamono ji moo leen gën a ñor bu ko defee rek ñu wéyal seeni activité politique foofe ca Mali ca Liban jamono jooju nag mouvement islamiste libanais bi di Hezbollah moo ngi xam xamle ne rek am na lu toll ci fukki roket yoo xamante ne jot nañ ko sànni foofee ca Israël ñu ne nag euh, di ñaawlu rek taxawaay bi nga xamante ne yenn ci civil yi ñu ngi koy amal foofee ca sud de Liban combattant yu Hezbollah nag am na ñoo xamante ne jot nañ fa sox ay roquettes yu bëri rawatina ci dëkk bi ñu naan Kachuka nekk ci bët gànnaaru Israël conflit israélo-palestinien bi la ñuy desandi rek am na beneen euh, doxalin boo xamante ne rek ñenn ñi fas yéene. jàppale réewu Gaza am nañu ko gannaaw ba ñuy jëlee rek ay avion di fa jaarale li nga xamante ne mooy ndimbal bi ñu amoon yenn yóbbu foofee ca Gaza te yoon bi xawoon metti lool ñu ne nag boobu lu nemmeeku nañ ko baax a baax fi nga xamante ne moo jege camp bi di Khan Younes loole may na tamit aide bi nga xamante ne yenn réew yi amoon nañ ko ñu mën ko yóbbu foofu ca Gaza ngir jàppale ñi nga xamante ne jamono ji ñoo loru ci boobule fitna ca jamono jooju nag ca Argentine moom ay junni junni nit rawatina ay étudiants ñoo wàccee ci mbedd ma li ñu bëgg rek mooy ñu xoolaat lu aju ci wàllu njàngameek njàngale mi nee nañ dafa cher lool. ba tax na ñi nga xamante ni seen loxo jotul gannaaw mënuñu fayal seeni doom étudiants yooyu nag nee na jamono ji li ñu bëgg mooy université publique gratuite boo xamante ne képp ku am yéene sàkku xam-xam di ko amal ci fàttali rek ñu ne. Euh, dajale na manifestation bu dajale na lu toll ci euh, téeméeri junni ay nit euh, ñu ci bëri di ay ndongo ca Canada moom am na rek ay lakk yu metti ñu nemeeku ca réew ma jamono ji nag lu toll ci junni hectare ak juróom benn téeméer ci ay àll daal daanaka safara soosu yóbbu na ko mu waral jamono ji fekkoon ni lëkkaloo ak yenn réew yi rek ngir wàllu ñi nga xamante ne ñooy kanada donte ñu ngi def ay jéego ñu ne nag tàngoor bu métti biñ fay nemmeeku ci yenn gox yi tax na nag yenn initiative yi xaw a am jafe-jafe soxna naata waaye nag terewul ba léegi ñu ngi nasi pexe ngir dakkal safara soosee nga xamante ni jamono ji yàq na lu bëri ci bët gànnaaru euh, Canada soxna naata. jërëjëf Ibou euh, ci euh, xibaaru bi ci réew yi alors ci ñaareelu pàcc bi bu leen fàtte dinañ waxtaanee taw yu métti ñu nemmeeku lu ci mel ni Chine wala Dubaï ak yàqu-yàqu yu ñu am ban njeexital wala boog sax ndax Sénégal dafa war a tiit ak nawet bi ñu dëgmal ak coppite yi am ci wàllu jaww ji loole lépp nag dinañ ci waxtaan ci ñaareelu pàcc bi ak docteur Ousmane Ndiaye moom mooy directeur exploitation météorologique fële ci ANACIM di agence nationale l'aviation civile et de la météorologie et puis suñu gan tey jilee Serigne Mbuub la moom mooy maire bu la jiite chambre de commerce wala boog mbootaay sax bi ëmb chambre de commerce d'industrie et d'agriculture yi nekk fii ci euh, Sénégal